loolu si joxe nañ seen scores from the last um, episode yi nga xamante ne moom lañ def fu mu nekk nii di leen wax ne nag bu still voting bi it's on Mungena dem si suñu website bi banjulnightlife.com ngeen vote gars yi who's got talent line? wax ba léegi mu ngi nekk on um, uh, ba pare di leen fàttali ne um, every week then they reset voting system be online uh, mun ngeen send seen messages yi on suñ Facebook page bi uh, Twitter. YouTube ak website bi just search leen Banjul nightlife rek di ngeen jokkalanteeg ñun fu mu nekk nii duñ def dara lu am ñu read suñ messages yi nga xamante ne lañ dee faral di def yéen ñi nga xamante ne yéen a nekk suñ fan yi dey send messages yi fu mu nekk nii du def dara lu apologize si suñ fan si nga xamante ne ñoo nekk am di seetaan BNL bi online am di people who's got talent bi doore am ñu ngi amoon uh, minor problem yoo xamante ne uh, ñi nga xamante ne ñu ngi seetaan show bi online duñ dee mën am access towards it waaye team bi we're working towards it Inshallah, allah dinañ resolve um, problem be for uploading an um, episode tape online. All right, mange use my Uhuru tablet from RLG. Um, first message being you, I'm from Facebook. Um, ki umi balatuda. Mune, to be honest, Ida, this is the only TV show I can't afford missing. BNL is the best. No doubt you guys keep working harder and you will someday get there, inshallah. Sponsors will come because what you're doing is really nice, most especially the coloring. So beautiful. Bulen musatai or bayi. Gambia loves what you're doing. Keep it up. Thank you very much, Umi. Thank you very much. Um, suñ beneen message be from Twitter Ki Smokey Cham Junior la tudda mu ne Banjul nightlife y'all just like Gambia. UMTV Raps introducing us to all the good things in the industry. Every episode be torn up. Mad love. Thank you very much. And then um, ngi am message be from suñ website be ki Abula tudda I'm congratulating the Gambians for doing a positive act for the people in the country and worldwide. This is what I call change, and many more to come, trust me. As for everyone, keep up the good job, but never give up on your dreams. By next year, I will be coming out there with my right hand, Corey guns, and the military. YMCMB family, maybe we can probably do something special or work with y'all for the Gambians. Thank you. Thank you very much. And then last but not the least, a swing message be from YouTube. Ki Junior Islatura, mungi comment on episode 36. Mune Mori is a great singer. He knows his stuff real well. His video is off the hook. I love it. Viva BNL. Thanks for supporting Gambian Thing and Thing. Gambia's got talent, no doubt. Thank you. Thank you. Thank you. All the time, lu ma dee wax mooy lii dafa nit ñi appreciate ko every time um, ñu last seen positive messages yi nii dafa neex si biir xol daf ñu ne motivate a whole lot ma leen a gërëm nag di leen santa um, xaw ma nag yéen yëpp waaye nii rek la ñoo mën a defanteeg yéen wan leen ne faale nañ leen te gis nañ messages yu rafet yi nga xamante ne yéen ak ñu ko doon seen thank you very much ok uh, fu mu nekk nii comme nuñ ko dee faral di defee rek events yi nga xamante ne mu ngi xew biir Gambie ñu ne night live lépp loo xam ne mu ngi xew biir Gambie biir lañ ko dee wane fii uh, ñu demoon biir Banjul président bi mu ngi doon celebrate birthday am bi ñu am fa Gambian artist yu doon perform ñu am loolu noonu si DNL bi kona Konaté moom on event uh, di haata mu ngi doon moom bi fu mu nekk nii nañ am a short break ñu seetaan vidéo boobu noonu we'll be right back Enjoy super-fast high-speed internet for less. Gemcell 3G, beyond your imagination. Yai Barone. Assalamu alaikum wa Gambia. Man la seen xarit Aïda Budol Mbow. da nga tok rek nga nako hey loy def baxu ya ne ya music scene def lo fi dara adis yang la brave ana yow ticket yu lambe nga ya. wa Banjul comme ni ngeen ko gisee si ministère bi foofu lañ nekka comme ni ngeen gisee tey suñ président bi moo xewle tey la birthday am bi ñu ñëw fii nii nit ñi yëpp génn si celebrate birthday am bi ak moom Gambian artist yi ñëw fii ñu am guest artist from Sénégal Kumba Gaw la nekk fii ni tey ma kontaan waa Gambie parce que képp ñëpp a génn si support si président bi ngi Banjul and uh, booy yaa ngi baax xam naa ne kontaan ngeen si ah, maa ngi feel good boy maa ngi feel good maa di dem play soni sax fii si Progel Hall bi tey yaa yëpp si yaa ngi baax bi la Gambia cekitaar mu ngi ñëw. ay bi lañ bokk. Ah, maa ngi am fan si bëri maa ngi a wax gars yi gën ñaan rek dina cool. yaa ngi baax fu ma romb every time boy yaa ngi baax hey de zan baat maa yéen bëgguñu rek ma sampataax gaa ngi toog rek na faax. Ah.